monsieur Lazare Lamane Thiaw euh, maire de Pambal nouvellement élu affaire am na lu bëri loo xamante ni mu ngi ñuy xaar te man mii xam naa ko xam naa ko ba wax dëgg fa yàlla euh, toogatuma mën naa ko wax te ku ma dégg xam ne te mu ngi fi ci dëkk bi dina xam ne man toogatuma maa ngi dugg di génn parce que loolu moom ma war dama laajoon euh, mairie bi pour ñu jox ma ko ma dugg di génn di indi li may jëlee feneen di ko indi Pambal te du ma mos a doyal mukk donc li may xaar xam naa ko yaa défi yu bëri ñu ngi fi yoon waa ngi nii donte maire amul dara la muy def ci yoon lu dul wax nit ñi ñaan autorité yi ndax ñu jàppale ko lu dul loolu ooma ko euh, courant baa ngi fi am na dëkk yu ma talewul ndox maa ngi fi am na dëkk yu ma talewul xëju ndaw yi donte sax duma ma ci euh, yoruma ko à 1000 pour cent à 100 pour cent autant pour am na li la ma ci war a def jigéen itam war war naa leen euh, joxoñ fu ñuy jàpp di fa yëngatu ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc défi yooyu c'est des défis yoo xamante ni euh, dañ ko fay fekk te yooyu noonu dañoo ñëw rek tase ak ñoom kon xam nañu ne défi yu bëri ñoo ñuy xaar gox baa ngi nii nag li ma lay ci mën a wax mooy ne. li mu yor ci ressource si naa wax ne sax non seulement du du ma ne euh, abul mais bariwut bariwut donc euh, nous sommes obligés normalement de travailler avec les populations avec les les partenaires avec les personnes ressources de la ci ñi dëkk ci localité bi ah pour jëmloo Pambal kanam te loolu dong muy sama idée loolu dong muy sama idée. moon na jamono man taxaw ma ne bu ñu état jàppale ba. tabax yoon wi gëm naa ne Pambal du ko laajate dara li ci des gëm naa ne mënees nañu ko lijjanti suñu bopp parce que boo xoolee fii gox bi goxu euh, mbay la yoon wii buñ ko tabaxee xam nga lan muy yoon day yombal dem ak dikk bi donc développement fa la commencé maanaam développement Pambal yoon wi am na ci quatre-vingt pour cent kon yoon wi kenn mënu koo bàyyi ci gannaaw kuy wax ci développement Pambal li ñuy lijjanti yëpp yoon wi moo ko gën a ñor leneen li ñuy lijjanti yëpp yoon wi moo gën a ñor te waa Pambal maa ngi wax ci seen kàddu li ma wax nii loolu la wax yoon wi moo gën a ñor moo gën a am fula moo gën a euh, taxaw lépp lu keneen mën a lijjanti pour jëmloo Pambal kanam. na commencé ci yoon wi mooy moteur justement wax nga ko mooy moteur développement mooy moteur développement parce que ku nekk ku am développement mooy lii gaaw te baax lii gaaw te baax jaar yoon mais il faut mu am yoon te yoon nag mooy gaawal mbir tey tey jii boo naroon dem boo naroon dem fii fii ba Daaru Alpha boo amul yoon saa waay ku am yoon moo lay njëkk daaw Daaru Alpha kon yoon wane na boppam la voie du développement à Pambal c'est le tracé c'est la c'est c'est Tivaouane Pambal Daaru Alpha boobu noonu buñ ko tegee ci yoon ci ci ci anam euh, yu yu yu ñuy yu ñu ñuy wax nii maanaam ñu guddra ne ko euh, li état di dese deseel Pambal du bëri xam nga ci soxla Pambal dama jiital yoon wi li ma ciy teg mooy ndox mi ak courant bi sànq wax wax naa ko ci euh, nasaraan dama ni ndox lu nit di jëfandikoo ci naan ci sangu ak yeneen yee mooy euh, togg ak euh, fóot wëgg jur gi loolu noonu ba àdduna sosoo ba léegi nit tàgguwul ak moom man dama ko bañ ba di may def campagne yëpp politique ci ndox parce que dama gëm ni politique gu ndox du politique ndox dafa bokk ci dund nit nit mënul dund sans ndox kon lu tax ñuy xaar ba nit di dund bay waaja a dee wa lott bay waaj a dee ñu koy jox ndox ça doit automatique donc je damay sànni appel damay lancer appel état ak ñi service yi nga xam ne ñi ñoo nekk ci loolu ñii jàppale nit ñi mooy fii mooy feneen parce que loolu itam war waruñu mën a toog ba xaar nit ñi oo oh, jox leen ñu ndox may leen ñu ndox may ñu ndox ñuy ñuy tëgg euh, kii yi fii ñuy ñuy marché fii pour ñu mën a am ndox non ça doit automatique courant tàkk-tàkk leer-leer noonu la booy communiqué ak nit booy jëflante ak nit il faut nga xool ko gis ko te jëflante yi léegi day am noor day am nawet day am guddi day am bëccëg guddi googu nag bu leerul kenn du dox dëkk-dëkkaan yi bu leerul euh, risque la un risque permanent boo xamante ni bii day indi safaan day indi loo xamante ni kenn bëggu ko donc leer-leer ak ndox. dañoo ànd bokk ci euh, dund bi loo tax man euh, mosuma ci am problème boo xamante ni bi non ndox mi ndox mi ndox mi non ndox mi ak ak courant mi dañoo war a ànd ñëw fekk si nit yi ñu dund dund bu baax. yéen yéen boobu dama ne la bi may balaa ma nekk maire sax li ma doon imagine balaa ma nekk maire mooy façon bi ma ko yenn à bras du du non yenn woon naa ko pare. pour dire vrai duma ci tàyyi duma ci sonn te maa nga ci dox guddi bëccëg ça je te le tout suite maa ngi la koy wax nii porte boo xamante ni bii war naa koo fëgg mu nekk biir Sénégal fii ngir commune Pambal ngir askanu Pambal nañ ma xaar ci bunt ba dina ko fëgg maa la wax lii maa la wax lii. Mhm. Mhm. ma ma laaj da kan laa àndal. déet man man dama lay dama lay laaj ba pare kan laa àndal walla wala question bi du ma maa ko moom euh, dinaa ci tontu euh, ku àndut ak nguur continuel doo liggéey. xam nga xam nga ànd bi ñuy wax àndu ak nguur. mais nguur moo ñu fi teg nguur moo ñu fi teg euh, bu ñu fàtt itam ne la commune c'est un démembrement de l'État le maire qui est élu à la tête de la commune lépp lu mu def ak conseil bi lépp lu mu def c'est vu et approuvé par le représentant de l'État qui est soit le préfet ou le sous ou le sous-préfet pour les départements c'est le préfet euh, pour les communes c'est sous-préfet bi la man nag euh, damay relativiser trop trop même pas lu ndaw trop wax jooju ko ànd recours mënoo liggéey. maa ngi koy dégg maa ngi koy dégg mais am na loo xamante ne nii foog nga bàyyi ci xel euh, nguur ñun la fi nekkal ñun ñii. population bi lañ fi nekkal nguur population bi lañ fi nekkal lépp lu ñu liggéey li ma li ma bëggoon kay lépp lu ñu liggéey nguur mën na koo seetu moo xam mën na koo seetu bu jàllee mu ne jiit jàll bu jàllul mu ne li jàllul mais ñun euh, dinañu liggéey dinañu liggéey parce que nguur moo ñu fi nguur gi duñu duñu koñe man boog nguur gi du ma koñe li tax nguur gi du ma koñe man bu la waxee tey tey ji tey tey ji j'ai de très bon amis ñi nga xam ne ñoo ngi ci nguur gi waxuma la nguur gi sax dama lay wax exactement APR ñu ngi ci biir APR c'est des amis te ñooñu gëm naa ne mën nañu ma jàppale gëm naa ni bu ma leen woowee dañ ma déglu encore que bu ñu wax euh, euh, opposant wala ku nekkul ci nguur gi Sénégal ñun ñëpp moo ñu ñor mooy ki nekk ci nguur gi mooy ki nekkul ci nguur gi ñun ñëpp Sénégal moo ñu ñor te ma baamtuwaat ko pambal gi ci Sénégal la bokk nañ ko jàppale te yàlla tax Lazare Ndëkk le maire de Pambal man maa wax man maa wax ma ni gis nga lépp loo xamante ni lii day jëmloo Pambal kanam ba population Pambal yi dans leur ñu gis ci seen bopp ñu nangu ko man pare naa pour nangu ko boo mën nag day jógee euh, nord wala sud wala day jógee ouest wala est mais dama la bëgg a wax ni rek euh, nekk ci oppos opposition wala nekk ci nguur ci sama gis-gis ci liggéey bi nga xamante ni mooy liggéeyu mairie ça importe très très peu mettre en garde non dama ne gis nga loo gis rek approche bi moo ci am solo c'est l'approche qui compte hein c'est compte tey tey jii tey tey ji mën na c'est l'approche qui compte je suis prêt à discuter avec tout le monde pour le bonheur de Bambal dama ne discuter avec tout le monde pour le bonheur de Bambal et dans discuter y a y de de qu'il faut prendre en compte